Mm-hmm. الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسنت برب سبحانه وتعالى جدولة النبي صلى الله عليه وسلم جنوية زيار مبالا مكيلة فإلا حمد بقنا يوم يوم جتائي kon lu fa yéenee dugg ci suñu tomb ñaareel ginnaaw bi nga xam ne tomb bu njëkk bi jàll na tomb ñaareel bi mooy jafe-jafe yi daara di jànkonteeg ak lan moo koy saafara ñu war cee ànd ak mbokk mu ñuy wax sëriñ alxaaji Fadlu Ndiaye Cheikh Ndinde di ab jàngalekatu alquran di boroomu xam-xam ñun ak moom ñu bokk nekk Touba. dafay def liggéey bu am solo bu jëm ci daara ak lépp loo xam ne aju na ci daara su ko defee muy tomb boo xam ne mat na di waxtaanee waaye mat na di bëri luñ koy waxtaanee nguur ku ne yëg na ne jafe-jafe yi daara di am bëri waa na ko am pas-pasu jàngale alquran jafe-jafe yee ko gëtëñ ba mu xëy woon daara ginnaaw waaye bëri na wuy jur bu amoon bëgg-bëggu njabootam yépp jàng alquran jafe-jafe daara gaar ak njabootam ba mu doxee ci foñ alquran waaye bëri na jullit boo xam ne doonu toonu jàngalekat waaye doonu toon ku ni yóbbu waaye moo jógaloon boppam ba mu demee jafe-jafe daara gaar ko ba mu mujj foñ alquran kon lu mat a waxtaanee la sunu mbokk mi ñu koy defal ni ñu ko waxee mooy alxaaji Njaay Cheikh Ndindy allah mu ñëw ni ñu ko defee woon rek bii bi oustaz Aboubacrine pare ku ci am ay taaliqaat yoo ci war a dool dolli waajal nañ ko ku ci am ay laaj yoo ci war a dolli waajal nañ ko lii ñi fi teew te duñ ay boroomi daara nañ bàyyi xel ne mbir mi war na leen a yitteel ndax jafe-jafe daara moom kuy ab jullit ku ne rek xam ko war na la moo xam ngay ab jàngalekat moo xam ngay ab donga moo xam mooy nga way jur nga doon woy jur kon ñu bàyyi ko xel bismillah kon lu fàttali rek ne waxtaan wi mi ngi war a diire waxtu taalixaat yi tamit mi ngi war a diire fanweeri minute muy genn wàll waxtu kon bismillah Cheikh Alxaaji Njaay Cheikh Ndindi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk يتدي نيوم yi بباخ ngi دي di nuyu bu baax a baax di am mbégte ay gët yoo xam ne ci alxuraan lañu ëpp lu ñuy xool gët yooyu yàlla xéewale la nga am jataay bu ñu lay xool maa ngi ciy sant sama borom subhanahu wa taala bu baax a baax a baax di ñaan yàlla sunu lël bii ñu am fii am ngirte am meññet mu rëy amal ñu njariñ ñun ñëpp lu kawee njort njort liñ ci doon séenu ba tax ñu ci sonn di ko taxawee di xam naa euh, al oustaz Aboubacry Ngom yàlla dogal na euh, li ñu fekke ci ab ay waxtaanam waxtaanam wi bariwul ca ñu ne woon ngéej fekke lépp ngir mënoon a gën a jariñu waaye yàlla dogal na euh, fekkewuñ lépp waaye liñ jot a fekke mandargaal ñu li nga xam ne moom lañu fekkewul ñu ci sant bu baax a baax ginnaaw loolu nag xam naa ne tomb bii ñu ma jox moom tomb la bu doy waar boo xam ne suñ daara boo jox rek mën na cee wax ak mën na cee wax ba jeexal keneen tàmbaliwaat faneen mooy jafe daara ak i jafe-jafeem daara moom lépp lépp daanaka jafe-jafe la wala li ci ëpp ay jafe-jafe la yëg yëgu roox bi ngay am yëg-yëgub ngëm yàlla bi ngay am mooy sàng jafe-jafe yooyu ba doo ko yëg ba du metti ni mu war a mettee waaye boo évaluer wet yu bari rek gis ne ay ay jafe-jafe la bari na jafe-jafe yuñ miin nag yoo xam ne xam naa ngir sàmmonte ya ndax damay bañ ma jeexal xam naa xëy na du jeex li ñu li ñu waajal du jeex li ñu jëkk muy muy jéggalu ci e, kayit yi waroon naa agsi ci ci yéen nëgën yi waaye oustaz Mamadou Alioune Guèye bi may wax e, kii bi fekk nañ ñi ngi jege màggal gi lool sës si ñi joxon naa ko leeraloon naa ko loolu biñ ci génnee it yàlla dogal mu mel ne am soj daf maa jàpp mu mu xaw mu xaw maa kii ba xëy na bu ngeen jotee it ngeen jubbanti rek bu baax a baax ndax dana bari li ci des xam naa kon ñu it ngir indi problème yi daara yépp ndax loolu moom mëneesu ko wala boobu mënuma ko wala du doon ci ci jamono ji dana jafe lool waaye dañuy indi dañuy fexe indi ay ay tënk ak ay joxagn yo xamne dana mandragal ne li mom ay jafe-jafe la ñu jàpp ne it ay safara man naka am inshallah taala li ñu jëkke moy dañ ne won al madaris al qur'aniyya mushkilat wa hulul kon daare al qur'an li ñu jëkke xamle xëy li war nek liñ jàpp ne liñ teewlu ne war naa ay ihrafam manam ay wayam ci ubbi daara la ca jiitu mooy jàpp naa ne ku ubbi daara ku nekk buñ la laajee da nga ne dama fas yéene jàngal doomi jullit ni alquran téere borom bi subhanahu wa taala ba ñu mën koo jàng ci liir njàng ma rafet ñu mokkal ko ña ko mën a mokkal mokkal ko ci ab jubluwaay la doon yaakaar naa dana nekk it sa jubluwaay yow yi jàngale nga du jàngale alquran kese mel ni ku jàngale yeneen yeneen mbir yeneen matière waye fexe ba ling koy jàngal mu yegg lim doon xam lim doon xam na li waxe borom bi subhanahu wa taala xam ne mboolem digel yi yi nga xam ne mo koy orienter ngir mu jariñu adduna ak alaxira mi ngi ci mboolem tere yi mi ngi ci mu fas ko def ci xolam mu yëg loolu bëgg alquran xam ne alquran yimut ak yenen yenen tere yi xam màggu alquran ak jikko woo alquranul karim xam ne limi digle da ko wara def limi tere daf ko wara a bàyyi léegi tege mooy dundug doomu aadama ay waxtu yuy dem la gone gi nag am na diir boo xam ne waxtu yiñ la ko jox nga fas yéene koo chargé ba mu fees dell ci lu am njariñ loo xam dana ko mën a jariñ ci dundug àddunaam man koo jëriñ ci dundug alaxiram daara alxuraan it bokk ci ay jubluwaayam tàggat ndaw li xale bi ba li ñuy soxla ci ab jullit mu doon ko ba li ñuy soxla ci ab jullit ci jëfe ndigali yàlla yi ak bàyyi ay tereem ci tënk bu gàtt mu doon ko fexe ba jàngal ko loolu mu xam mu xam nan lay jëfe e, ndigali yàlla yi ak di bàyyi ay tereem léegi des mooy ci jeexal mooy génne ay mbooloo yoo xam ne dañuy mokkal téere borom bi subhanahu wa taala nga xam ne jamono ju nekk te ñàkk ci askan wi ñoo xam ne dañuy dañuy man loolu dañuy mokkal alquran nga ku nekk ci ñun nag suñ daara bu ne jàpp ne moom ñe maanaam mbooloo yooyu mokkal alquran daf caa daf ko war mu bokk ci ñi koy génne loolu bokk na ci jubluwaay yi yi nga xam ne moom mooy kuy jàngale euh, alquranul karim léegi tege mooy tabax tabax aw am mbooloo ñoo xam ne ay boromi xam-xam lañ ay boromi xam lañ xam seen diine gàddu lislaam di ko tasaare na mu na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabatul kiram ridwanullahi alayhim daan defee mu tabax aw nit ñoo xam ne danañ xamee noonu lislaam di ko jàngale noonu bokk ci ay jubluwaayam ca boobaa nag lé la nga xam ne moom mooy moom mooy al lubuna al ula maanaam mooy la mu war a njëkk a jëfandikoo ci matière ngir jàngale diine moom mooy alquranul karim na ko Sëriñ Tuubaa doon wax naan ya ayuha sibyaanu la tastaxilu an il huda wa bil ulumi staxilu kon fastaxilu bil xifd kon mokkal alquran dafa mooy matière bi jiitu bi nga xam ne bu ko nit amee ak ak xamam diine mën naa yomb lool kon ci tënk bu gàtt loolu may naa wax ne mooy doon jubluwaay yi ñu mën a tënk yi ñuy tënk teewlu ko ci jubluwaay yi daara alquran karim muy barab bu ñuy xam loo téere borom bi subhanahu wa taala daara moomu nag may faral di wax ne ay jafe-jafe la judduwaale dafa judduwaale ay jafe-jafe nañu bàyyi xel ne yonante bi sallallahu alayhi wa lu jiitu muy ubbi daara amuloon benn problème lu ñu dugg ubbi daal amul benn problème al amin lañ ko tuddee woon gaa yëpp bëgg ko teg ko ca kaw fu mu jaar ñu ne gongo keroog ba mu ubbee taal jàngu ba ba mu ubbee daara ja la tàmbali am problème keroog ba mu ubbee daara ja la tàmbali am problème lu jiitu muy ubbi daara ja amul benn problème yi yi nga xam ne ñooy fay daara it keroog lañ lañ taxaw pour opposer daaram bi Sëriñ Tuubaa daana wax ne ñaar ñooy ñooy fay pas-pasu nit ñaar ñaar ñooy ñooy fay pas pas nit benn bi mooy di la jox jar la di la jox loo xam ne jàpp nga ne ci wàllu àdduna moo la a lii nga nekk nga nga dellu gannaaw wala ñu lor la ba ba ba nga ba nga ba nga dellu gannaaw yooyu fa saasa lañ ko proposé comme ni nga ko xamee woon waaye liñ jubloo wax foofu rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa daal ay problème mi ngi juddoo ci taal jàngu bi taal jàngu bi keroog lépp luñ mënoon ñoom Quraysh ngir na fay taal jàngu bi lu mu bëgg ñu defal ko ko na fay taal jàngu bi lu mu bëgg ñu defal ko xam nga ba mu naan bu ñu tegoon jant bi sama sama loxo ndeyjoor muy représenté lépp lu jëm ci wàllu force force énergie lu jëm ci wàllu arme lu jëm ci wàllu guerre lu jëm ci wàllu doole jant moo ko représenté weer wi représenté lépp lu jëm ci wàllu nguur bànneex alal ak yu mel noonu ñaar yooyu dong ñoo am lu mu ci man a doon du tax mu bàyyi du tax mu faytaal jàng waaye kon ñu xam ne ñu nit nag ne daara moom ay ay jafe-jafe lay lay àndal incha allah di ñëw nag ci jafe-jafe yooyu ñu ko ay cër ngir sàmmonte kaa waa ak waxtu liñu man cër bu njëkk bi mooy al mushkilat allati tataallaqu bil bia al madrasiyya bia dañ ko xaj ñaari xaj da am al bia al madrasiyya am al bia al usriyya manam bu njëkk bi lay wax ni manam bu njëkk bi mooy jafe-jafe yi nga xamne mi ngi amé ci barabu daara bi barab bi nga xamne fi daara bi nek la ci jitu moy li ëpp ci daara yi barab yiñ koy def du daa barab yu ñu waajal ngir daara li ëpp ci daara yi Sénégal yi barab yañ koy def du barab yu ñu waajal ngir daal kon daara am na jafe-jafe barab bu mu nekk kër gu waay tabax waajaloon ko mook ñaari soxnaam ak i doomam nga ñëw luye ko def fa téeméeri donga problème dana am ca lu mooy ëpp barab yi ñuy waajal néewaana maanaam ay benn benn la ci Sénégal ba léegi li fi sa daara bari bari nga xam ne fii ci ndakaaru mille bi ñuy mujj recensement yi ñu doon def avant muy àgg yi ma ci mujj jot mille neuf cent et quelques daara ñi ngi woon ci ci ndakaar ci ñett ci ci ndakaar ak li woon waaye li ñuy bari bari ay benn benn daara mooy yoo xam ne dañ koo waajal ngir daara maanaam dañ bañ koy waaj barab ba ak ak plan ba dañ koo waajal ngir daara kon jafe jafe-jafe boobu muy li ci ëpp ci barab yi du barab yi ñu waajal <coughs> ngir daal léegi tege mooy barab yooyu daara yi nekk jumtukaay yi ya daara war a làmboo yëpp ya daara ya ay nit barab boo xam ne ay nit ñoo fa nekk di mbooloo ya nga xam ne mooy ya méngoo ak mbooloo ma jafe-jafe la ci daara yëpp wala yu bari ci daara yi yu bari ci daara yi lu néew lañu am ci par rapport ak mbooloo ma fa nekk ci jumtukaay yoo xam ne ñoo war a satisfaire bëgg-bëgg en tant que être humain maanaam en tant que nit fu mu nekk li nga mooy lu bari ci daara yi buñ ko càmbaree cet gi ci war gi cetu barab bi li muy des day bari lool li muy des day bari malheureusement am na sëñ daara yoo xam sax dañoo maa ngi ko doon mbokk yi sànq ci yoon bii ñëw am na ñoo xam dañoo gëm ne tilim gi ci la bokk maanaam tilim gi ci liy joxe barke bi ci la bokk am na sëñ daara yu gëm loolu de am na ñu gëm de ah am na sëñ daara yoo xam jàpp nañ ne ci tilim gi ci yi joxe barke bi ci la ci la bokk man ab sëñ daara debaana moom àgg ci naan ma suñ làmp yi ñuy taal moo tax barke alxuraan bi amatuñ ko waaw maanaam ta jàng matt waroon ma ne ko matt mi bi ñu koy taal matt mi taxuñoo jóg leer ngay jóge ci matt mi ñu xool téere yi moo ñu taxoon jóg waaw bu ñu ko mënee am faneen kay wax dëgg yàlla <coughs> waaye kon yëg-yëg boobu mais daara yi ceeb gi jafe-jafe la ci daara yi ñu ci bari ci daara yi sécurité am nañ problème sécurité maanaam barab yi ñu nekk am na problème mu sécurité daara yu ci bari bu dee yi nga xam ne daanaka xëy na mm, mbir amuñ laleen leen gënal la barab ba doy waar fu neex waaye jaar am na daara yoo xam ne góor góorgóorlu nañ waaye boo ñëwee da xam ne ba léegi xale yi dañoo accessible maanaam xale yi jamono gi ne mën nga àgg ci ñoom maanaam amul li ci bari ci daara yi amul amul sécurité. dañuy bañ nag ñu jël daarul imaan gi teg ko suñu garam fi ñu nekk nii. ñu ko defee rek ñaari jafe-jafe yu bari yi may wax moom day day fàdd waaye nag bu ñuy génn rek danañ xam ne yii jafe-jafe yu bari yoo xam daara ñi ngi koy ñi ngi koy dund xatuk daara yi maanaam jafe-jafe barab yi dafa xat ci xale yi te diinu xale yi li li li li li norme yi maanaam wàllu hygiène wàllu wàllu wér-gu-yaram dafa am ay norme yoo xam ne moom la aw tëddin laaj néewaa na foo ko fekk ci suñu daara yi daara yi am bari na barab yoo xam ne jafe-jafe xat la am loolu li koy waral mooy ñàkk li ma waxoon rek mooy ñàkk barab boo xam ne waaye luñ ko woon ngir lool ñun ñëpp pas-pas la ñuy doxee ak yéene ak bëgg-bëgg eh, nag daara koo ci dem suñ daara boo ci dem condition yu man di dund ànd ak njàngale moom pas-pas bi ba seef bi bu amoon balaa nga doon xam ne tey ni mu mel gënalu ko mu amoon mu jekkoon tey ba mën a defal boppam ci nga xam ne ni mu mel gënalu ko bokk na ci jafe-jafe yi nekk ci bara yi mooy jumtukaay yi yi ñuy faje aajo jumtukaay yi yi ñuy faje aajo muy dawratul miyaax yi maanaam foofu it par rapport ak mbooloo mi nekk ci daara yi léeg-léeg mu nekk ab jafe-jafe boo xam ne ñun ñëpp dañ koy xam kon loolu may sa koo tënk tënk bu gàtt moom it nga sàmmante nga waxtu yi xëy na ñëw ci kanam insha allah taala bu ñëwee ci débat bi dana mën a sul lu bari ñu jàll ci yi ma tuddee al mushkilaat al idaariya am na jafe-jafe yoo xam ne maanaam saytuunu daara ji maanaam mbooloo mi saytu daara ji kuréel bii saytu daara ji mu idaara ji <coughs> la ko dale ci mudir ba ñi ñi nga xam ne ñoom ña ñoo idaara yu ni ñoom am na jafe-jafe yoo xam ne bu ci ñoom lay jëm maanaam ci jëmmi idaara bi lay jëm ba ca jiitu mooy ñàkk a taayin maanaam ñàkk a xam nga nu ma ko waxee ci wolof ñàkk tënk waxtu yoo xam ne ci la ñuy jël lu bari suñ daara yi waxtu wu ne albaab mafto maanaam saa boo waxee léeg-léeg nit day woote ci daara ne ah euh, yeen jamono yi ngeen jël ñu ah ñun kay amuñ jamono ñu jël ci bari ci daara loolu la ñun kay amuñ jamono ñu jël manam jamono ju ne rek paré nañ pour jël li ëpp ci jafé jafé yi ñuy dund léeg-léeg xëy bu ñu ci may dañ ci ñew ci karam loolu ci lay bokk moy ñàkk wax wut waxtu yu ngay jël seen ñi nga xam ñi programme fi ne di wut amna fi ñoo ñoo ñu koy def ku melni wax de yàlla Cheikh al Khalil Lo xamna ko ci loolu baax Serigne bashirou Serigne habibu xamna ko ci lolu waxtu yo xamne dañuy xamne waxtu yi moy waxtu jël nga xamne dañuy bind liste bi tok de xaar ba waxtu woowu amna ay ay ay njariñ yu bari yu am yu bari ci suñu daari yi ñaare lolu lolu mu ci ñette gi tege moy ñak ñak am manam xutta manam tëralin wu leer woo xam ne idaara bi am na ko ku fi ñëw di jàngale ñu won la yoon wii ci la ñuy jaar xale bi bu dee ku ne xel yoon wii ngay jaar ak moom diir bii dana mën a mokkal alxuraan ba mu benn gàllankoor xale bi bu dee ku digg doomam xel yoon wii ngay jaar ak moom diir bii dana mën a mokkal alxuraan xale bi bu dee ku yoon wii ngay jaar diir bii dana mokkal alxuraan nga xam ne dañuy ñëw da ngay ñëw yow miy jàngale fekk ñu ñu taxtit ko ñu planifier ko tegal la lu ci bari ci daara yi amuñ ko programme lañu am programme la am danañ jàng njël danañ jàng marax danañ jàng ngoon danañ jàng suba heure ba sàngam heure yooyu loolu moom ñëpp daara ko yëpp ko am mais lan la ñuy def ci waxtu yi maanaam planifié ko mu leer loolu moom néewaana wax dëgg yàlla i daara yu koy def ñàkk am ahdaaf yu leer maanaam idaara bi saytu daara ji nga xam ne ubbi daara ji bu dee amul ay ahdaaf yu leer ci boppam ne moo ko tax a jóg ca yooyu it dëppoo baase wu ci yee ñu doon wax parce que am na yoo xam ne bu doon rek da ngay ndax léegi daara yi moom da gis léeg-léeg ku ne la ah suñ daara yi léegi yéen sol bassin yéen yéen war oto man saa yi damay ubbi daara da ko gis léeg-léeg bu dee nga xam ne xërëfam mooy wut alal kooku am jafe-jafe maanaam du mën a do yi ñuy wax yëpp yoonam néew ci moom recette bi lay xool ca loolu mi ngi ci am waaye ñàkk am ahdaaf yu leer dañuy wax ne nit ki saa xëyee war naa laaj boppam fan laa jëm lan laa fay wuti yoon wan laay jaar ngir àgg fa ban ju kañ laa fa bëgg a àgg ban jumtukaay laa jëfandikoo ci misaal kees laa jëm kañ dama faa bëgg a fanaani kañ laa bëgg a dem pour fanaani fa nga ne naa ne ba timis lan laay lan laay dugg nga ne damay dox par rapport ak ki ne damay dugg oto ki ne maanaam nit ki foofu la ay mbiram di leere fi mu jëm kon il faut idaara bi it ay ahdaafam leer nañ léegi léegi mooy idaara bi léegi-léegi lu ci bari buy tànn ab seen daara du ko tànn ci kafaa ab maanaam du ko tànn ci man manu liggéey bi ñaare mi ngi koy tànn ci yombuk fay gi day gis ku man liggéey ñu ne yii sa waaye moom daa tàngaloo kooku kay moom sëñ bi kenn attanu ko maanaam jël juróomi jàngalekat yoo xam ne tey mënuñ liggéey bi moo la gënal jël kenn kii nga xam ne mën na liggéey bi waaye nag fay gi ngay xool yu ci bari barab yu bari ñaare duñu teg seen mbir dëgg-dëgg ci man bi wala bu ko tegee ci man gi danañ yeex a gis ku man ndax lañuy fay du méngoo ku man loolu day am maanaam yeexee wala ñàkk xam wala ñàkk a jooxe àqi jàngalekat yi yu bari ci idaara bi ñaare ñoom dañuy dañ ni ñuy dunde ak ak ab jàngalekat alxuraan ñaare dañ ko jàppe employé boo xam ne doxin wi léeg-léeg li muy yàq ci liggéey bi bari na am na beneen jafe-jafe mooy ni ñuy séddalee xale yi léeg-léeg daara yu bari ni ñu séddalee ay xale ci biir xalaqaat yi amul ay tërin yuñ ko tër ci misaal da gis kenn léeg-léeg am na daar yu organisé ñoo xam da ngay dem ñee yor ijji bi marxala sàngam ñee ko yor marxala sàngam ñee ko waaye loolu lu néew ci daara yi ñu bari da dem ci xalqa boo xam ne lépp fa jaxasoo nga xam ne waa pour mu génne benn résultat problème la parce que pour mu pour mu maanaam mu mu mu am concentration bu bu bu bu bu maanaam bu jëm jenn wet gu mu xam day jafe ci moom nga xam ne ñu bari maanaam programme yu bari moo nekk ci bopp bi di tourner day tàmbali ci ci ci programme bi geesu jëm ci programme bi geesu jëm ci programme bi nga xam ne loolu it ñaare idaara bi ñoom ñoo koy war bokk na ci jafe-jafe yi idaara yi bi di def mooy léeg mu taraxul leleen mu dugal kàddoom ci mbir moo xam ne mbirum sëñ daara bi la maanaam mbir moo xam ne sëñ daara bee ko war a lijjanti digganteem ay dongaam léeg-léeg idaara tadaxul ci façon boo xam ne dana indi jafe-jafe day gis léeg-léeg sëñ daara bu bàyyi ci daara ca fekk ne waa idaara ñoo doxalee noo xam ne amatul misdaaxee ci kanam ay xale loolu day am maanaam idaara boo xam ne sañ-sañ bi ñuy doxee dañuy jàpp ne kii ñoo ko ñoo ñoo la jël employé nga léeg-léeg ñu seet seet doxalee sa diggante foo xam ne say responsabilité la yow en tant que jàngalekat yaa ko war a lijjanti en tant que yaa say xale même bu amee njuumte dañ laa waroon a woo faneen leeral na ko mais du ñu seet seet tadaxul ci ci façon boo xam ne man naa yàq ci liggéey bokk na ci jafe-jafe it mooy yittewoo gu ñuy yittewoo ci maanaam génne mbooloo at mii de génne woon naa fukk at mii dinaa ci teg juróom at mii génne woon naa fukk at mii dinaa ci teg juróom at mii faawu ma génne ne maanaam da nga jàpp ne yow waroo jéeg jafe-jafe la ci daara yi léegi doo yem ci waroo jéeg maanaam waroo weesu at mi ca ca ca génne woo ñenn da ngay da ngay ne même da war a génne mbooloo mu ëpp ma loolu jafe-jafe la ci daara yi bari na xale yoo xam ne ñu ngi leen présenté naan mokkal nañ mokkaluñ ñun yor ay fra franco arabe jagleel ko xale yi mokkal léeg-léeg ñu xam dara. da ngay ñëw xale yi xam ne man dama am programme boo xam ne xale yi dama naan leen da ngeen di continuer naafila koor ak lu koor dañuy ku fi ñëw ngir ñu sàmm alxuraan ji da ngay xale bu tari koor ci koor gi koor yi digg yi mu tàmbali jàng si ci école bi mënut a tari dara am na xale boo xam ne bi wax ak moom dana ma man sëñ bi dañ ma ko dañ ma soloon man la ma ko waxee man daal ah, sëñ bi alxuraan dañ ma ko soloon rek forcément loolu suñu jafe-jafe la suñ jafe-jafe la ci il faut ñu xool ñu fexe ba mbir mi lamboo dëgg-dëgg ixlaas bokk na ci jafe-jafe yi bokk na ci jafe-jafe yi ñàkk a ñàkk taw si maham yi ak masuliyaat yi maanaam daara ji li doxinu daara ji jàngalekat bi dañ ko cee war a intégré dañ ko ci war a boole boole goo xam ne dana yëg ne moom du jàngalekat simple kese mais dafa dañ ko associé dañ koo boole ci daara ji nga xam ne ay ay responsabilité la ci yor yu yu war a bàyyi xel. lu ci bari nag ci ci ci idaara yi ñaare duñ duñ boole jàngalekat yi ci lépp lu jëm ci loolu bokk na ci jafe-jafe yenn ci daara yi euh, seeni ki yor maanaam kiy jiite daara ja di mudir ba maanaam nekkul koo xam dafa tax dafa tafar tafarruq dafa tafarruq dafa euh, bàyyi soxlaam yépp ngir ngir daara ja maanaam day bokk daara ja day bari mudir yoo xam ne dañuy dañuy bokk seen daara dañuy nekk ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak daara bi nangam ak nangam ak nangam ak daara bi loolu it jafe-jafe la ci daara yu baree baree bare <coughs> jafe-jafe la bu jógee ci daara bi it ba léegi mooy di di gàll maanaam taklif jàngalekat yi ak donga yi nga leen di loo xam ne mënuñu ko léeg-léeg léeg-léeg nga dem ci idaara boo xam ne bu présenté programme am ak waxtu ñuy jàngale maanaam da ngay gis waa ji daw leleng gis kuko jengu leleng gis sëñ daara bu tàmbalee jengu ngir ñak poste bëgg nangam waye disu gat la fay am xamni li mu ëttanoo noko len ci daar da ngay day gaay di ko wax léegi dañ na ne daara sangam nit du ay malaika lañ ñooñu wu nit du ba rek de laay fofa da nga ko dégg ngir lan ngir ngir li ñi chargé li li li li ñuy tege waaw léegi tege mooy yedd yedd wala jubanti ab kat ci kanamu ay dongam leleg leleg mudir def ko wala kanen ca loolu moom jafe-jafe bu rëy la boo xam ne li mën a yàq ci daara bari na lool waxtu yi moom mu lañ njëkk a rek mbokk yi moo tax ñuy baral léegi tege mooy li ñuy wax shiddatul muraqaba maanaam jàngalekat maanaam e, mudir bi wala walla muraqib bi mu teg maanaam ni muy fugloo ni muy fugloo jàngalekat yi tar ba am na ñoo xam ne bari na jàngalekat yoo xam ne lu bari lu ñu waroon a def yooyu tax na ba duñ ko def yu bari yu waroon def maanaam koo xam ne tey midi la waroon wàcc waroon din góorgóorlu nga ne xalem yii tëreegut man na fee toog ba midi demi ngir góorgóorlu ngir sàmmante ak ñoom waaye shiddatul muraqaba bi tax na ba comme yow da nga naan huit heures ku ñëwut nangam ma ne midi zéro rek ma wàcc waaw maanaam huit heures la moo tax da am am na am na muruna boo xam ne maanaam ak yolomal boo xam ne faw idaara bi di ko di di di ko doxale ak ñi muy jàngal jàngalekat bi fexeel ba mu yëg responsabilité rek waaye am na tar boo xam ne bu ko bu ko dëgg dëgg mbir mi taree day day day lu baree bari ci lu war a du ko def al ihtimam bil kamiya dunal kayfiya day bari lool idaara bi ubbi daara bi rek ah, ubbi rek xale yi na xale yi ñëw rek na xale yi ñëw rek na daara yi fees na am nangami nit man nga xam ne lu mbooloo mi gën a bari yoonam moo moo ko gënal waaye lan la ban recherche maanaam ban e, qualité la njàng mi am yitteelu ko loolu yu jafe-jafe boo xam ne daara bari ñu ngi koy dund gaaw dàq jàngalekat gaaw a dàq jàngalekat problème bu idaara la idaara yu bari sulta bi am dañ koy jaay jàngalekat bi ñaari baat ñett rek ñooy la bu dee lii daal lañ tër lii mooy suñu programme boo ma nee jàngale boo ko mënul nag nga xam noo def waaw yow koo xam ne maanaam nit ko nit ki bu xasee mokkal alxuraan kilifa la mbokk donte xale la lu nekk nekk xale laa wax de ki xas mokkal téere yàlla bi kilifa la waxuma la ne di magum jëmm nag wax dëgg yàlla dafa am ak jëflante goo jëflante ak moom bari na barab yoo xam ne seen dara du manqué seen salaire baax na seen nangam. mais seen jëflanteeg seen jàngalekat gaaw a dàq jàngalekat tana ba léeg-léeg nga wax nga wax kenn ne ko du ñu leen man man mi nga xam ne léeg-léeg damay liggéey ci loolu mbokk yi wut fu ñu jàngalee léeg-léeg nga présenté nit bu ne yii kooku sa waay kooku ñëpp la jëflanteel kooku diw newoon na fa diw newoon na fa diw newoon na fa ah bu ma fa demee du ma fa yàgg loolu it nag jafe-jafe la bu ma ta bàyyi xel ñàkk boole ci suñ yi mbokk mi ngi doon wax ci wàllu wér-gu-yaram ñàkk boole ci suñ bi lépp lu jëm ci wàllu tarbiya badaniya loolu jafe-jafe yi daara yu bari la maanaam damay faral di wax ne suñu xale internat yi daanaka ñoo ginaari élevage yam amul njariñ amul njariñ ca dara waralu ko lu may bu jëkkoon activité physique yi yi ñu daan def di bay di sàmm di def nangam day tax nga am nga am kàttan mais boo ko mënut nag wax dëgg yàlla war ngaa mën a def sëñ bi sport ak lu es ban ban xeetu sport ngay def ban espace nga am mais lu ndaw ndaw na xale yi def mais sëñ bi lekk ci lekk suñ suñ xeeti lekk yii daar yu bari ci ñun góorgóorlu nañ ba ba miroxaat yi am am na ci ak ña ngay bande yaa leen upp ñu toog fu nooy nan la xale yi wéree mat naa bàyyi xel ci suñ ci suñ suñu liggéey léegi tege mooy ci jëliinu xale yi ci idaara bi léeg-léeg di ko ak âge yi daara joo xam ne ñëpp fay sumbaloo da gis léeg-léeg koo xam ne bu la rombee jàng nga ne rombee jàll nga ne ko ah kii ci jàngalekat yi laa mu ne non pourtant day jàng de waaw ah, day jàng xam ne maanaam nga xam ne jëmm ak xale bu ndaw ñëpp sumufloo ci ci ni mu amee suñu daar yi néewaa na foo ko dem di ko fekk bokk na ci problème idaara yi mooy ñàkk a waajal maanaam daan waxuma na amut de waaye néewaa na daara yu am maanaam koo xam ne dañ koo jël ñaar ak ñett ñoo xam ne li leen jël mooy yéen li nga fi jëriñ mooy sëñ Mouhamadou Abdou daal su amee absence nga ñëw wóotu ko fi benn fan wala ñaari fan moo xam absence bi lu ko waral loolu nii war na am li ci bari bi suñu daara yi jàngalekat bu wéradee diir booba xalqa booba day day am gàllankoor waaw bu amee absence xalqa bi day am gàllankoor ni nga waana fu ñu fu ñuy waaye loolu ci suñu wàll bi daal kon mbokk mes naa tënk foofu ci muskilaat idaari yi ñëw ci muskilaat yi nga xam ne taawudu ilal mudarris si ñun jàngalekat yi bokk na ca jafe-jafe yi nga xam ne maanaam ci jàngalekat bi lay aju jafe-jafe yi nga xam ne ci jàngalekat bi lay aju bokk na ca mooy jëflante bu ñagas sa diggante xale yi jëflante bu ñagas sa diggante xale yi ñu bari ci ñun jàngalekat yi dañuy jàpp na waruñoo ree waruñoo kaf waruñoo xakay lay bu xale bi wàccee nag sëñ bi xale bi wàcc na yaay ndeyam yaay baayam yaay maamam am na jëflante boo xam ne da nga ko war a xale bi waaye am na suñ daara yu bari yoo xam ne lu xale jëflante yow yaakaar nañ la man ay dafa am mbokk suñ daara yu ñëwoon seet si ma ba ba ñuy dellu ma ne naa leen déposé bi may départ xale yi sam oto bi ne ma doo dem ci joxoo ñu nangam doo dem ci joxoo ñu nangam coow li bari coow li bari ma maslaa ak ñoom joxe la joxe. tàmbale arrière ñaan ma yaa ñaaw maa yéen a ma gën a ñaaw suñ daara bi daan jël waaye joluñu wax joluñu daan yaa ñaaw maanaam nga xam ne moom yaa ñaaw ji ñu ma wax da oo da cee mer mer moo xam ne jéggi na yow waaw moom mi ci yorom néewut ko waaw ci ko mais moom mënut a supporter loolu waaye xale bi xale bi dana am dana am diggante boo xam ne dëgg dëgg nag loolu moom méthode la bu baax ci ci jàngale mbokk yi